ku ba képp ku la gis dalay jox cofeel am na ay xeetu ndomb yoo xam ne lépp looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw ah sëriñ Abdou Salam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim réew yow mii nga xam ne ay këyit rek mooy sa yitte yow mi nga xam ne sa yoon da bëgg mu leer naññ dawal gaaw seeti sëriñ Abdou Salam Mbàkke jëkkër nga bëgg sëriñ Abdou Salam daf la ciy defal ay ñaan yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool sëriñ Abdou Salam daf ciy def ay ñaan moom mii di sëriñ Abdou Salam nag nee na bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti hémorroïde wala sax nag ngóor a sonn la lool nee na benn pot laa lay jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga sa ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti sëriñ Abdou Salam Mbacke waaye Géejawaay marché Sam numéro téléphone bi di 78 433 78 78 sëriñ Abdou Salam Mbacke kéemaanu yàlla rek la. door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Famara Diédhiou moom nag jógee na ca Turquie ga mu nekkoon. club ba mu nekkoon di Alanya Sport juboo nañu ak waa Granada nekk ca Segunda ba maanaam deuxième division bu Espagne doomu Sénégal bi dañ ko able foofee able le nag ba saison bi jeex waaye ànd na ak option d'achat boo xam ne du obligatoire maanaam du force su fekkee doxal na ca Granada bu leen neexee ñu jëndee ko ci club ba mu jógee di Alanya Sport muy Famara Diédhiou waaye option d'achat bi nag du obligatoire kon jamono jii nag li des ci saison bi ca Segunda ba la koy muy Famara Diédhiou ñu jugee ci Famara Diédhiou jël beneen doomu Sénégal di Chérif Ndiaye moom nag ma nga doon football ci Chine club bu ñuy wax Shanghai Port fala doomu Sénégal bi nekkoon waaye jamono jii nag club boobee jubóo nañu ak Demirspor nekk ca Turquie doomu Sénégal bi dañ koy able foofee ba saison bi jeex able ba nag ànd na ak option d'achat su fekkee doxal na ca Turquie waa club boobee noppi nañu ngir xaatimal ko contrat muy attaquant di doomu Sénégal bu am vingt sept ans kon ñaanal leen ko su loolee yembee mu doxal ca Turquie Turquie googee nag min na ko ndax nekkoon na fa ay jamono. ñu jugee ci Serif Ndiaye dem ci transferu Bamba Dieng ak Terem Mofi bu dee Bamba Dieng moom daanaka ay mbiram léeg mu yemb mu jugee ca Marseille dem ca Lorient doxal jamono ji nag ñoo ngi amal visite médicale yi lépp tembe dina xaatim contrat doxal ca Lorient am na ñu naan nag waa Marseille ñoo bloqué transfert boobee waaye Marseille kat bloqué wu ko jamono jii Bamba Dieng mi ngi def visite médical su lépp yembee dina xaatim contrat bu dee doomu Nigeria bi moom soo moytuwul du dem ca Marseille ndax gone gi kat Marseille gënalu ko moom Nice la bëgg te RMC nee na waa Nice jamono jii ñoo ngi waajal offre bu toll ci trente millions d'euros ngir jox ko waa am doomu Nigéria bi mu dem jàppale leen ci seenub attaque waaye bu dee Bamba Dieng moom daanaka ay yëfam yemb na ñu sukkandikoo ci RMC ñu jugee ci waa Marseille ak Bamba Dieng dem ca waa Atlético de Madrid bu ñu sukkandikoo ci Standard Sport doomu France bii di Klaus di football ca Marseille dañu ko bëgg Atlético li ñu bëgg moo di door waxtaan bi su ñu ko mënee am ci weeru janvier bi ñu jënd ko su mënul nekk nag bu ñu yeggee ci weeru juin ñu jéem koo jëlee foofe yóbbu ko ci Liga Santander ba mu doxal ndax ñoom kat seen latéral boobee jamono jii dafa am jafe-jafe ba fa ak tey jii amuñu ko fa mën a taxaw di doxal jamono ji nag doomu France bii di Klaus nekk ca Marseille moom la ñuy bàyyi xel bu ñu sukkandikoo ci Standard Sport. ñu jugee ci waa Atlético de Madrid ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Angleterre bii di Bellingham di football ca Borussia Dortmund club yi ko bëgg ca Europe nag bari nañu lool waaye Sky Sport nee na ñaari club yi nag ñoo gën a jekku ngir am ko muy Liverpool ak Real de Madrid ñaari club yooyee ña ngay xeex. di jéem def lu ñu mën ngir am doomu Angleterre bii nga xam ne dix-neuf ans la am mën lool la muy def waaye club ba mu nekk di Borussia Dortmund li ñu bëgg moo di jaay ko xaalis bu weex tàll cent cinquante millions d'euros wala cent millions d'euros la ñu bëgg ci doomu Angleterre bi bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport ñu jugee ci Bellingham waaye Real de Madrid duñu ko génnagum ndax doomu Croatie bii di Luka Modric xam ngeen ne contrat bi ko lëkkale ak Real de Madrid li ci des bareetul ji li ko waral moo di dafa jox kàddum waa Al Nassr nekk ca Arabie Saoudite li Mudris di xalaat moo di bu saison bi jeexee mu dem ca Al Nassr jàppale leen loolu moo tax yokkagul contraam ci Real de Madrid ba léegi bu ñu sukkandikoo ci RMC ñu jugee ci Luka Modric waaye ñoo nga Real de Madrid ba léegi suba xam ngeen ne Atlético de Madrid la ñu war a jàkkaarlool mu soxal Coupe du Roi match boobee nag liste ba génn na waaye am na ay absent bu dee Alaba nga xam ne dafa woon gëj naa Fofana dina bokk ca match boobee waaye ñeenti ñii may waaj a lim duñu ca bokk Tchouaméni naam tane na dooraat na entraînement yi waaye suba du mën a football ndax bokkul ca list ba xar ba Xaalit bokkul ca list ba Lucas Vazquez ba ca Eden Hazard kon ñoom ñeenti ñooñu duñu bokk suba ci ñu war a jàkkaarloo ak Atlético de Madrid ca Santiago Bernabéu bu vingt heures jotee ñu jugee ci waa Real de Madrid ak seeni blessé dem ca waa Paris ñoom nag ginnaaw bi ñu ñàkkee doomu